médecine traditionnelle seen wax seen appareil analyse quantum bu xarañ bi nga xam ne junni rek ngay déggee ticket te ci ko appareil bi lépp luy wéer yaram sa tànk ba soof mu génn rek tu mu ñu noppee nag fajal la ko mu bokk nag yéen i faj diabète asthme fibrome kyste prostate règle douloureuse hépatique rhumatisme trouble digestif nerf sciatique impuissance hémorroïde interne externe ndoxum si articulation waaye itam seen fauteuil massage bi nga xam ne daal xarañ na lool baax na lool ña fay dem itam wax nañu ko nañu daal am na sutura da nga ñëw toog mbësal la sa aw yaram képp ku yittewoo lu mu bëgg def consultation ngir xam wéer yi nekk ci yaramam numéro baa ngo 77 336 33 65 wala 66 391 17 36 ngeen mën di nekk ci euh, Sénégal muy ci Touba Iliport ca Dakar Ngor Désalmé di ca Mbour Carrefour Saly ca Saint-Louis ak ca Ziguinchor ca Kaolack wara bi nga xam ne kon seen seenoo am na fa fii ñu nekk rek mën ngeen a jokkoo ak sama maam Diarra Bousseye ci numéro ma jox leen l'armée annonce avoir intercepté douze missiles kon ñi ngi ci xabaar bi bitim réew di cëri Mouhalim info système défense aérien bu réewum Russie kon amal liggéey bu am solo guddi gi ñu génn benn attaque boo xam ne ay missiles yu bari kon li leen sàndeenoo mu toll ci fukk ak ñaar ay missiles yoo xam ne fabrication américain la yu ñuy wax ATACMS missiles yu mel noonu daal li ko toll ci fukk ak ñaar lañ leen sànni Euh, ñi nga xam ne kon ñoo di waa Russie dëgmaloon ki nga xam ne kon moo di Crimée gàntal nañu ko ñi ko xam ne kon ñoo di ministère russe de la défense missile yi nag fabrication américain la ñoom daal Russie li ñu jàpp mooy Amérique ñoo koy jox waa Ukraine ñu koy jëmtu ñu koy jëfandikoo seen digganteeg euh, euh, waa Russie ci fàtte nag diggante Russie ak Ukraine gii seen guerre bi fan yi tàng na de tàng na lool lool tàng na de gars yi ñi nga xeex bu taratar ñu baree baree bari ci arme bu réewum Ukraine ñi ngi leen di faat terewul nag ñi ngay def way def góorgóorlu xamal leen itam na sax am na ñoo xam ni euh, wala bokk waaris yi yokk nañ effectif bi nga xam ne mooy effectif bi ñu yóbbu ki bi ngir ñu xeex xeex baa ngay amee ca euh, nga xam ne moo di doon doon base bi nga xam ne risi rek annoncé nañ te ji nanguwaat nañ fa beneenu euh, ville bu yees waaye nag fi ñuy wax kursi itam kursi itam ikki na ñu ko woon def percé doon avancé waaye nag risi itam ña ngay wéy face ngir gàntal seenu avancé ci gàttal daal jàppale ne guerre bi diggante ñaar wàll yi fan yi tar na Israël ma ngay wéy di massacrer askanu bande de Gaza àddina bi na pat laata ñu cee ñëw ak mbir mu ñaaw mi ñu defati ca bande de Gaza lu doy waar la fa Israël defati ñaari ay seex daal ay seex benn waay juru góor wu am ñaari seex ay liir lañu daal wala kon nekk bu ñu ay mag mu nekk ci benn camp bu ñu wax almahasi almawasi fala la nekk dafa jóge woon nag ngir dem doon déclaré ci doomam yooyu ci ginnaawam ñu bombardé leen faat leen loolu doy ñaari ñaari doomam deux maanaam ñaari seex yoo xam ne seen waajur góor comme leen gis ci foto bi daa demoon ngir déclaré ji leen ginnaaw bu nu juddoo ci ginnaawam ñu bombardé fa ñu nekk faataale leen di doy waar di ñëw di dolleeku ci li Israël di def ca bande ci ay ñaawteef li doy waar ci Israël ca bande mooy dañoo dem ba daanaka banaliser faat bakkan foofe moom ndax ndax xam ngeen ne du ñu xëy benn bis ba ngoon te Israël faatul lu ëpp fanweeri nit te Bandagasaa ndax xam ngeen loolu. dafa mel ne moom faat bakkan ci Bandagasaa Israël moom fi ne def ko banalise chaque jour chaque jour chaque jour même lu mu néew néew vingt personnes yu bees Israël dana leen faat di ko def ca Bandagasaa di ko def ca Siso dañuy occupé ndax maanaam jàppale na ba géej bi tàmbalee léegi xëy ñu bis ba ngoon. ah xanaa jamonoy jamonoy tereet bi mooy jamono ji ñu amee tereet ne nañu amal déggoo lu dul loolu de te booba sax tëriwut te si soo doon occupé ñu ngi koy faam jàpp leen ne boobaak léegi man xawma bis bu ma xëy ba ngoon te dugguma di suivre information te gis ma ñu ne Israël def nañ massacre di ngeen dégg sax Hamas di ko wax sur nepp tey bi Israël def na 4 massacre def na 5 def na nangam warab yi nga xam ne fala askan wa daw di làqatu ji Israël daf koy bombardé ne Hamas dañ faa seen ba barabu comme bombardement la Israël fu ñu bëggee faat kenn ku bokk ci bande de Gaza ku bokk ci Hamas daañu faat fukk wala ñaar fukk ñoo xam ne seen yoon nekku ci Mouhalim jërë ngeen jëfati mbokk ci Mouhalim foofu kon ma ngoog lii mooy li ñu mën cee xabaar bi subaak léegi tey jii di aljumaa fukki fan ak juróom benn ci weeru dëppook fukki fan benn ci weeru safar yooyu nag di leen jéggalu ci naajum xabaar yeeg guddee gi li ko waral mooy comme ni ñu ko waxee fan yi moom dañoo xaw a tabje lool ndax dañuy liggéey ci yi liggéey itam ci chaîne bi te benn loxo mënul lépp waaye daañu fas yéene suñu comme laakkatu ñu ko façon yooyu ni di ko defee yéen rek di leen ko yëggee waxtu nekk donte nag mën nay guddi wala muy naaj euh, di leen jox kon di déggee ci xabaar yi euh, euh, guddi gi di leen yaakaar na xëy na fii ak màggal gi bu jàllee yaakaar na xëy na suñu loxo mën naa gën a gaaw mën naa gën a féex wax leen comme tey jii waa dayo mu xadamatul xidma la ñu fas yéene seqal waxtaan ngir ñeel naka la ñu waajalee màggal gi ak siyaare ga caa yu rot na ci barab bu tedd yi nekk foofu ci grande mosquée bu Touba kon tey à vingt waa dayo mu xadamatul xidma kon